kon ñu fàttali leen ni jamale bi ñu doon wax ay jamono dafa am koo xam ne gars yi dañ koo jaar ginnaaw muy sëriñ Mamour Lo yaakaar naa moom moo waroon moom moo doon wax ak Abdoulaat Lo far mel ni sëriñ Lamine Lo daa ñëw daal di jaar ci suuf jël palaasam léegi nag nee na day kaas ay droit parce que gars yi dañ ko gannaaw ba jël ndaw si ab laat ñang taxaw na fii léegi nee na ndaw si moom moo ko jël sëriñ euh, Baye Lamine Diop wax na loolu kon nag moom itam xëy na léegi dina ñëw incha allah ci kàddu yi nga xam da koy layal ci kanam tuuti itam am na loo xam ne ay laaj ay tontu la mel ni ki sëriñ Mor xam sa diineeg Baye Lamine Diop ak Cheikh Abdou Ka ñoom ñoo ko séq di laaj lan moo tax jigéen ñi sëyituñ ak lan moo ko waral ak jigéen ji bu demee ba war a sëy itam liñ ko war a yabe ak góor gi nga xam ne moom lay fekk itam lañ koy dénk yooyu yëpp kon incha allah mi ngi ñëw ci kanam dañuy jox sëñ Abdoulaye Ndong bu ko defee moo ko ci topp. yow Cheikh Oumar Mbacke ñëwal te jàllale. sab dictionnaire baati wolof ci sa ngëneel. maam Kocc bég na. lool ci yow ndesab liggéey ci làkk wi yaa Cheikh Oumar yéeme na lool. raar na nga gis liggéey bu mel ni bii nga def. moor mbàkke yow yaa ngi sigil ab der bu ñuul kon day mun jitu wolof baati wolof yu xóot yi lañ ci indi ñu tànn ci téeréer waaye dañ ci tànn ñaari xaraf rek muy xarful jiimi ak xarful yaay ci jiim gi laa wax ne damay jëneer lu mel ni ceeneeri cofeel mel ni ko ñaar caf ko gafar ñëggu ca teel damay jëneer lu mel ni ceeneeri cofeel mel ni ko ñaar caf ko gafar ñëggu ca teel ba maa ngi jànkonte ca xol bi aw metit wu jéggi njob baxte ni cey jépp jëreet ba xel mi jollo sa na ba xel mi jollo naa xol bi li jib xañ na ma cëslaay ba jamono naa ci lu mel ni njënd wax ci man ci kaw maram la jël ma fàdd cam suweet di jukkat di joxal te jàmbat ak junju jënjul jóori ci béel ma jaaxle compoonu ci man ni ngam cofeel ba jàmburaayu rongo di car-cari jàllaw xel mi xol bi di jër-jëri fit wi na ñogg jokkaloog njàqare xol lu sax ne ñumm mel ni mel ni coggal gu ñukkul ba maa ngi ceey ñaarlu ci biir am njayaxaan sa moom njësit ñëll ba maa ngi ñeetaan ma ñaxtu ñaxtu kenn ñëwal jàppale ma cawarte dem njàqari ñëw jaxal si ma ba càqaral na xol bi jàmmi jam jamoor moom ñëwal njold ma jëllu kekki joor jullootu naa ba xam ne janjang ca jaba ci diggu njolloor ga ba weeru ni rubba ma sàkku aw ñaraasu jàppandiwul ñu ma njàmbaasale njëgg moom jërul kanam gi ñëkk ñaq ñuqi lëf ma njoofu ay jafeñ-jafeñ jàmbu tëma mu mel ni jaay ni yesu ñàng ñoo wër ta yu ñammasle di curpi mel ni jur ma aw ci ñallu njomm te xel mu ñorul ba mel ni am njëgg mu ak cugari la jël ma jommi jommi jiñ jamono li ma dal te xam ne moom du jag du jekkal du jagal te xam ne njàngoor a ko gën jikko ndax it njekk da koo xamul du jekk it jubut ma dal jàppeeli ci lii ma xam ci moom te def ko ñukk jàpp nag ca kay boroom te jokk te te jokk jëm ci moom te ñukk jëm ci moom te jokk nag ci jëf takkañ ko njukkal ko ba fa sóobu ci lef dontale nag njàqare fi mu ne mooma muur ni njoof di muure jaasi war mu bépp boor du tee moo jéem muñ te xam ne rek ngëneel dee su ko jox cuune kum rekk la njal te ñàkk jom day tax a jëf jëkk day tax danay waral di jëf lu joon lu juunu loolu jubut ay njagemaar yu jàkke tey jongante firdaws ci jong ma yàlla nañ ci joti kon mooy xarfal jim yi ñu teg ci xarfal yaa yi ñu euh, xam nag ab ab téere bi lëmm la boo xam ne xaraf yëpp ñëw na ci waaye dañ cee jukki ñaar yoon barkeelu bu ëllëgee incha allah ñu des ci yanam xarafa yaa yaraa ngaa ngi may yeeroo ka yadda ka yong far yërëm leen ma sag yees yees na yokkate ngi di yër ba yambar ya far nañ tiim ma man may yàlla mu yës ba yoqooloo naa far yollu ngar nañ ma far ma ber te yiiruñ ma may yoppoor lu yërmaande far na jee ma nàmp yaanaat ma ma nàmp yaanaat njàqare yëj ji xol bi mar te yombul samay mbir yemb yankeewlu naa itam ci yëmm ak yaras maa yey di yooxoo sama naqar tasaa meññitum yaakaar mi yundul ma yéene yiw ku nekk te ku nekk te teewul may yëgoon naqar lu tar ba saa kawarug metti bi yiif na ba yéegi yéen ba rongoñ di saw fit ne yàcc ne laa ko gar ma yeewat ci tey gaa yu mu tey yéwén ma yoo ko yootug yokk faw ci ngeen ji yar te doo sa yonjeg di yeex ak di yox yoxi te def yow aw ci yoon ba def yundu cig ci gër ma mucc ci ye ma mucc ci yeer muy yàbbalum xel di yàq xalam te muy yaradal am xel ku yewu du sóoru mbër la yàlla ñu yippil may yére yeete tey yëgan ma far yalfandoo ak muñ ci saa yen bi yurte dër ba yéeji jalak saay mbir yaraax yére lay wetam ñu yeddan ma bàyyaax yànjaxaan ma soree ki lor ma mucc ci yaaf ak yitte far yem ci ngën ji yiw ne yomb yoxoos jàmm ni yulub ci kër te yaakaar du tas sa yitt yomb mu yokk itam yaroog yow luy yàq ak lu am la lu am la sorek nar salaamaaleykum sëriñ moor njukkal laa war na buur yàlla sàmm la te may lag wér ak te dàqal la wépp lor sëriñ seexu naa seen mag ji mooy mag ju làqi te moo jar woowal keneen man ma noppi far man maay mbaraatkat bi teg ay dil ci lan ma xamee ku ñëw ma nax ko ba jël lam yor ta dàqati ko am naa ko may bëgg teewul nag ma am fari far ku neet wutal naa ko aw tur wow danaay xame ko am naa fi sa dof bi ma boogaa loxoom dafa bar saakon bi moo kon baron boppam balay toji ko am naa ñu may tàmm buy kook ay nelaw doyalul yërut dara duma wax ak moom de moom yoru ko ku ñëw ma naa ko itam yow rek la yaay ki ko yor bay wax ju neex ak njaral seddil ta gees na ma ko man paaji lay teelu ndax ñoo yër te ëppale it yërmaande mee yi garan mooy loolu duñ maye ko ñoom koo ci lekkal dërëm fuñ te fuñ nee la naj ci tëye doo rëcc day yomb lañ lay wax dañuy fayu ko tabaski moo dàq fu mu jub see mbaraan ma di dox am na ab tëyeer jaaykat yi piisit danaa eme ko jaaykati takkaay yi parfon ñépp laa ami far bu ñëpp participer day dox du may rate ko cey waaye bis ba cey waaye bis ba ku nee lay soxla ngir li mu jeñ ab karr-karree da lay tànqal te doo wuyu ko may lay di teg gàddu saas caag naam daraame fu ne lay def ko ay dil yu set lay teg bu sooy jige ko ko yor ma dikkal ko dal koy ratt nag ba mu set lekkal ko lam yor bu jeelee rek ma daw sori ko filtere ab numéroom lay def abal ko ba far dóor ko ci xeer yi wutaat kuy am balekkati ko nii laa fi nekkee ba bis am waa ju tukki tugal ba ñibbisee wooma ci oberse ma wuyu ko daf ma oberse ta ma ta wax maa wax ba jox ma dorog daf maa oberse ta wax maa wax ba jox ma dorog ba nax ma jaar sama kaw man booba laa alaku ndekeb sida la ma bàyyeel jii tawat ak bon te fekk maa ko naxoon lekkal ko fàttewu ko man yàqu naa fu ma jëm tey ñépp daw nañu ma feebar bi siiw ku ne naa day wàlle ma ma amee ko lu teg ma lii du lu dul ay àqi nit yu ma dal wër di mbaraan aka wor tey pay gi gis na ma ko bu dem bu doon tey ma téye sa bopp doy lu bu wér li yàlla jox ma ba ay diil deesu teg na ma ko ber nañ ma bedd ma booleetuñ ma far ci dara ma dëkk ciw naqar ak mettiit gisees na ma ko déglul ma conseillé kon yow miy jigéen ta di ndaw mbaraan bu ciy dugg len nit bum jaral la ko ngir dama cee jaar ba xam yi danse muy mën a jur xaaral ma dem jaamu buur dunyaa de suur na ma ko mu tëj te julli ci yonnen ak ñoñam saxabaam yàllaa ca teg naa sayxul xadim mujj ko kon loolu dafa mel ni ko doon wax rek ci làmmiñu mbaraankat ku ndigg lay ruux mbaa tànk yay soox mbaaw yaramam jeex waajaa ngi dikkal bët yuy lëndëm mbaa yu di xasan mbaa yooy teg na per baa kaay fii ma xoolal ndoxum si jàng ngoroy kajor tàng ku yuy bañak mang ki lekk gaaw sil ay saan yu të dañ mbaa seere muy bañ mbaa fett ciy tuñ bul waaj ko dikkal day faj imooriit tayit damay seet ci xal walay wet ba faj la jàppal ku mënta am doom mbaa kuy ami góom mbaa sax ku far yoom booy ñëw di sottal kuy weddi yit juum ku ñëw ma faj moom talaajumam koom loo indi naa jël saamam da daan faj saa bay ñëwiy faj ma doon du am paj kon bul ma sikkal fajum cosaan mii la jëngu man mii te fii ba daw me xam nañ ma déggal saatur tur wi mooy bàyyi xéewal dama ay loo indi nag saay ma faj ko jàppal lundi di Tuuba mardi di Tàmba Dakar àllarba askan wi laa tal lii laa ko déggoon muy yëgle ak ngoon cib rajo doonoon kuy bàkkakay dal moo ñeme yàlla lii lépp nar la ay nax la dil la ñi ñoo ma jaaxal moom benn takk bom ñaari fukk di faj lu nekk li um na sam xel bi ma bi bi nga kii yoon ne naa ko jàllale nag dama koo far bàyyi ndax jataay bi daa bëri ay waaraate te booba day waaraate moo tax kon mel ni Serigne Bassirou Lo la ñuy woo waaye waa groupe bi ñi nga xam ne ñooy def tont ak laaj ci lu tax jigéen ñi sëyatuñ nañu waaj après ñoo ci topp sëriñ Basiiru dafay avocat day layal dongo yi lu tax joxoon leen seenu cër ci réew mi mu jóg tasal robb nib wookaata dem layali sa mbokki donga yi ndax waa nguur di leen terali Basiiru layalal yi donga am nañu cër ci réew mi dañ leeni seetaan am ñu ñuy farale wookaab daara ji dafa mel ne daara ji dañu ko tuumal waxal ko lu dul jikkoom xañ ko ay xàqam wëlbati ko it di sonal njabootam ak di leen desal gannaaw mu mel ne nag daara ji dafa mer ba porte plainte war a am ay awokaa nag ma doon kenn ci avocat yi nga xam ne ñoo jóg sol robb bi ngir peredel daara ji ci tribunal bi ma ne ma jóg te sol robb neb wookaa te dem layali saa bokki donga ya ndax waa nguur di leen terali ma jóg te sol neb wookaa te layali saa bokki donga ya ndax waa nguur di leen terali daara yi ñaar lañu jooj quraanu jooj nosoraan di ñaari doom nag yu seen yaay féete woo gënali te ndey ji seex tëdde njaaxaan moo ko war abadan di moytu parparlu ak xeebaate tey yamale te nguur gi leen boole ñoom ñaar ndey ji seex du mbiram daa jeng-jeng gu fés goo xam ne dug tàndale daaray tubaab jee seen doom jañ safoo ci lu bir ba noppi def daara quraan doom jëleen la jëli ci biir sëb réew mi bañ ko tuddee nañeel na ñooñ daara waa quraan ku leen jëlali dañ mosal la ca des nasaraan ba jël ko sax taxul mu doylu ma ngay jàmbat ñu koy dalali bu doon ci yoon lañu fab wen cinq jox nu nu jën bu doon ci yoon la nu fab vingt-cinq jox nu nu jël noo gën noo ëpp noo gën te duñ jàmbat ba fi sonale bu doon ci yoon lanu nu fab vingt-cinq jox nu nu jël noo ëpp noo gën te duñ jàmbat ba fi sonale droit de maa ngi laaj man aw nitam fu ñu ne ba tee ñu laajal nu sun droit ci bit sa bile moo waaye man fàtte woon naa sax ne ñoom xamuñu droit ya jiitu ci waa réew meeg la leen musali Qur'an la waa réew mi jiital wér na képp ko xam français nguur genn koy imposé ci ndigali waa banque mondiale kay tostaan kasa UNICEF ak seeni kem ñoo waral coow lii ñu koy birali foo tollu dégg ñu fab tuumaaki xasta yu ñaaw teg ko ci ñoñ daara ngir dawloo ña leen jubali yalwaan mu dul dakk son nag sàcc ter bu lim yi lañ na mooy daara tuub naa dégg man ci lile ñu dundalul daara tey dundew turam ci lu fés ñoo sooke tuuma yi ak baat yi ma leen limali amaana kuy coow di kaasal daara fekk xamul la daara soxla financement yaa ko cay dugali amaana kuy coow a kay wax fekk sax dañu ko joxi xalaat teg ca ay dirham yu koy dundali bu doon dañoo bëgg a xam daaraak tawat ya mu am ñu laaj ko ñuy jàngale kay jàng téere bile ne ñoo ko xam ñooy ña cay xëy def ko abadan kuy laaj na laaj leen ku leen laajul naroo jubali ku jëm ci ab dëkk day dog yoon wa dog di ca dem kuy dem te jaarul ci aw yoon nag ma ngay fétali te kuy fétal wàcc naw yoon mbooy ga lay xala jaar ku xuus ci mbooy gi bu yàggee gaynda lay dajali te daara yoon wa ca jëm wax naa ko mooy ña ko yor kuy dox di wax te waxoog ñoom doo ko koy dimbali xaaral ma jéem a biral daara njariñ ya mu am ndegam xamoo ko xerawlul jéema a déglu lile moo saytu réew mi ci baatin bul ko xel yaar yi moo tee ba ay du fi am moo tax ñu koy terali mooy jàpp nit gindi leeral xol ba jox ko njubit minal ko jaamu balum def muy dëppook ndigali daaray tojab xol di xiirtal nit ci fàggu lew xamal ko wartéef xamal ko doylu ak mosole doo ku daara defar muy dox di kaasaka toj wataakatal pënu waay waay yar bi matali bul jéema doo ko man réew mii nitam wi fi gën ci daara lañ génne ji wax wér na dug tàndale alxaaji maaliga kii bàyyi ñas limaamu ca yoof sëñce na baag ñañu maaseel mooy ka leen xamali sëriñ bu mag bii fi tuuba daara jeenu ko jox te moom la yoru yar ca ñam àndal ñu cay yaali ku mel na maam Cerno sëñ Ndaam Abdu Mbàkke Buso sëriñ Mat Lamin Gay sëriñ Moor Jaara fuñ taale fudul ci daara kasaa Seex Ibra Saar wakasaa Masan Ba Jóob wakasaa Seex Ibra Nam Faali ñi ñépp daaraanu leen jox moo ne kat ca na réew mi koom-koom bi ñam génnee ko yor ba file li doomi daara yi gàddul koomu réew mi bu doon ci jëmm tey jii maanaam mooy ruuga koy dundali 60 pour cent ak 70 am ya moom lañu wax ne ñoo ko yor bu ko diingat jàngu nuy tappale nitam wi ñooy mool te ñooy gas ñooy tabax balafong ñooy installé ka defar yu jekk ci saali ñooy ministre ka métallique ñooy électricien ñooy baana baana ji ñoo fiy doglu ay tool yi ñoo seere business bi ñooy jël ropp la ne ila ind ak Duba yëkki siin ngir faggu ay maali te léegi ñooy chef ya ñooy jël surga gaa demoon ekool di jàngi tubaab ji wax du bokkaali te boo ko seetloo ne seen société yee gën a dox ci réew mi ngir xamu nuy caaxaan duñ baali seen ñoñ du ñaxtu dañuy fay weer la senk bu jot duñ yeexalug pay na xam nañ xaqi nekkaali lu baax ci réew mi la ñoo def loola waaye lu bon seetil ñeneen ne du ñoom giñ naa bi lan faali te lii du ay nar ku am xel seetlu daldi ko gis ne nëbbuwul jant njolloor dëgg baa ngi nile njaboot gu mel nii ku leen am bàyyi leen xel a war te sàmm seen ndey jëleen nampal te koy terali baa nga bàyyi ko ak boppam ci jàmm ju sax moo gën nga koy xeex a koy gàkkal di tuumaali li ngeen di tudd ci gàkk yi daara dung ju ba tax ne lim defar mi ngi nii ngeen lànk ko xool yi ataaga ngeen ko ci mboolem wet gu nekki pexe ngir bëgg askan wi def nasraanu lañ faale def ngeen di surne ak ay tiitloo ka jàpp ka tëj dafiy kilib di tiyaatar ngir di tooñaali teewul ba tey daara ji dox toogi leen taba ko yàlla ko ngemm koy santoo ka rof doole ngir moo ne nu nosal na sikra ci lu bir te ki koy wattu ndaw kaaraange rijjaali ku juddu mooy ñëw bindal ko téere tudd ku faatu moom la woo nan ko seddaale motee ma noppi te faf gàttal ne cas wi la way jébbal ko ñooñ daara ñii boroom xaras faale taxawlu naa tribunalub diina laa taxawoon defub avocat di kaasal daara miñ ma fale lay naa ba bay te naa it ne may xale yay na dëgg laa jiitaloo nag xam gu mat ci lile ku xam te am xel na daal may farle moo di la gën ne àndu mag mbër mu ñuy daanee la koy bësali yàlla ko samp ma koy ñaan nag mu gën di ko xaar te mu ñuy jàngale kay jàng téere bile ci jëpp lor ak pexey noon nag lu jóg bëgg a jëm ci ñoom tadiw ay mu daal koy fekk ne mooy musale ci barke Cheikh Bamba sunu yaakaari tey ba ëllëg laa ñaana lii man Basiir Lo mii ko fiy bindali ak barke njol Makka sunu yónneen ba góoru Badar sallaa wa sallama mook saxbaam yabur terali wasalaam jaajëf sa wax leer na Cheikh Basirou Lo ta rafet yow mat nga ab avocat ndax lay yi daa matale ñuy jégalu bu baax a baax ci xaw a dégg waaye mel na ni léegi mu sotti ay ñaar ak ñett ci des incha allah waaye groupe bi mën nañoo ñëw boo ko defee ni ngeen defoon léegi ngeen def ko Cheikh Abdoul Ahad sëriñ Serigne xam sa diine Serigne Lamine Diop dañuy laaj lan moo tax jigéen ñi sëyatuñ yéen sama gaay yi seetsi si ma tee ngeen a jóg dimbali ma ci mbur mu moom jaaxal na ma muy sun jigéen ñii bañ a sëy Cheikh Abdou wax ma loo ci xam te laaj sëriñ moorit ba xam ngeen waar jigéen ñi ndax ñu xam ni sunu taar mi ngi ci sëy laaj nga ma yow mbir mu jafe lay tontu sax wax nga ko fi te néew na sëy ku koy jëfe bay seetlu sax rëy ga mu rëy laaj nga ma mbir mu am solo xanaa mu jóg te gaaw solo te jëm ci tontu tey balu lu dëng fii ci sama way dama defe ci sama xel ne moomu mbir li ko waral yàkkamti ge xemmeem gi dal jigéen ñi bokk na ci tey jigéen gu nee ngi wut ko am alal wala moodu ba am kër ak oto te sax du am diine du am ngor du way ngir say dafay lu am njariñ tan doya dal ko nipp këriñ tam baax a baax ba fariñ fëriñ jar ne jigéen ñi jéem a sëy ndax lu jigéen di mën a wut ci àddina ak lu muy mébét ca sëy la nekk na ko wut ndem bëgg naa jur ko ko fay jigéen na fonk jëkkëram te jub te jekki fi këram te koy dawal ni ab laram di gont ngir moom ak xëy te na ko def nib sëriñam dëkk ci sàkku yi ngërëmam te di ko daw nib taalibeem te bañ a doon ku gaaw a fay jigéen ju sàmm am pëyam te noppi waxi jëkkëram te toppi waxi jëkkëram boole ko di jaam boromam buy faatu dem àjjana wéy Lamine ma góor ñi itam lu leen teree denc ba xam ragal la ak ñàkk jomam na góor ñi tontu mbaa lay ndax njël li ngeen ragal ba tax dencatu leen walla lu tax xam leen ne yàlla mi fi sax lu nit ki am moo ko ko may te sax ku góor góorlu ba am benn jabar def ko ndamam te diina may la ñeenti cam ku roy ci yéen sunna si fay yeneen bi nee na kuy jullit na dolli askan wi tayit mu def ci ñoom yaru jullit ba ñëpp jub te bañ a mooy bu nu saxee ci lii ndigal te doylu yàlla te doylu yàlla dina jël lislaam ji rek mu fiy ndigal ba diine yëpp dal di fay amoon na bis benn julit werante na kudul julit banaan ko des na tuuti kat suñ diine jaay suñ diine jaay not ju ko mooy eh, yéefar ba naa ko lana tax nga wax ni suñ diine du sax mu naa ko noonu lislaam mi tax may na nu jël ba ñeenti ndey yéen a tëral palaan it moo tax manaa la daañu not suñ diine yëpp dana ñun julit ba jenn diine duutu bay te yéen tubaab benn jabar <laughs> moom ngeen di xëntewoo di yor lu bari yit du ngeen ko jur ngir bëgg rekk dund bu doy tubaab ba luum boole ca rus ndaxte dafay dëgg gu fees te gaañi xissa bii ma gis moo tax ma naa na góor ñi sëy te xam ne kat jigéen ñi sax ñoo ëpp góor ñi ci lu sax ku leen jëlul ñu daldi sax ci tumuranke ak i mooy war a tax ñu daldi buur te jéem denc nag bu wóor jéem jubal te moytu jigéen ñi sëy te bàyyi fay xamal ne kenn nit yorul yàllaay ki yor te mooy musal moo woddu ñépp tey dundal lu nit di am moo la ko may dëkk ci ak célibataire di sag di sangu tey diw baleer foo tollu sol foo tollu sol séer yu seer du ndam du fulla te na góor ñi dem takkutewut jigéen ñi wàññi laaj bi it te xam ni sëy du force kat mu jëlante la day maslaaki muñ la maslaaki muñ la te yal na nu yàlla boor bi may gudd fa nag wér gi euh, wér tama may góor ñi jabar jigéen ñi sëy nu bokk soobu ngir ma wéy danaa la yab boo demee yow sëñ ba dee ko sukkal ku bëgg a jur nit ku ñuy raamal na sax ci sukk tey nax-naxal ak a neexal ak diwut wut ngërëmam bul mer te waxtu wu dee mer nag demal naxi ko teyit xarit bu mu am fonkal bu koy doye dal te fu la yam loo yamit kum noonu it bàyyi ko yaayam ja jàppe ko yaay baayam nga def ko sa baay magam ja def ko sa mag rakkam ja it bëgg ko te lum la jox nanga ko doy loo bul ko xeeb rafetul addina doy loo fi ne ngir doy le kenn defu ko nangay rafetal sa moo gën rafet la yére te tekki moo gën takkaaye teggiin itam fexe ko bu yàlla àttee nga dem dib aawo sas la wu ngir yow la ñuy roy su baaxee ndam la yóbbu nga ko su dee dangaa dem te doonu topp topp ca roy ci wépp yiw su defee safaan nga daw sori ko santam wa deew ko wuyoo te bum la woo nga ne haa haa mbaa koy ŋaaxe koy ŋaax léegi yaddali ko góor ñëpp a yem koo ci nax neexal ko am ngërëmam ku rëy du am cër bu rëy nooyal te jaamu ci ko te góor ñi luñ mer merit am na juróom yu tegal yoo xam ni soo leen ko taajee foog ñu xaddamiku yoo yaay kafeeg ceeb mbaxal yàpp ak cereeg la ca des ak njar mu sedd galaas lii génn góor bañu ko mokkal ba mel ni ki der woyaf ne am mbaxana lewet ne am xar te farlu bay wayit ko xiral yitam ci lu baax nim tan ci midd xiree foo juumatee def safaan gaawal di tuubali ko mu ñul ni mbaam yow goreel ni fas te mii ne muus mokkal ba mel ni giléem yow sëf bu ñëw yanu ko yarul te maandu yiwal jàppal salaam ñitam jàppal sa tànk bi bul jëw yit rambaaj moyu ko muñal ma wépp naqar mokkal di sàkku ngërëm te loo xamul dee ko laaj tey bés di muuñ jege ko bul yëddu bul tontu bul koy gëdd jox ko àqam lu war ci moom dee ko def kon yiwa làq nga ko bul fiir te bul faa bul foor na ngay faaru te bañ di faroo waaw te te bul na eh, foor na ngay faaru te bañ di faro bul fen fay te it fuuy na nga ko wattandiku te ko def it morom deel sax ci sàkku ngërëm looy def na yàlla di tax njistal itam ko yaatal tu jub sàkku aw yiw fépp ne royal ci soxna yu baax yii ngir ma soobu ji ko xadijatoog xaaisoo ak doom ja faatimatu raabi xatoog soxna jaara yili mbër royi ko dénkaane baa ngi fabal yóbbaale yow fa nga jëm yakkal ci nag ku neex foo xiifatee añe ko te def te dee ci ndékki te ci reer def ko yit njogonal te def ko takkaay te def koy yéere waa ji ko tagay doxee ka tey jëf te yéene ko yit waat naa ni kon loofa fa jur nit ñëpp jiitali ko sa yoon wi yàlla nang ci sóoboog jàmm àgg ci jàmm te sëy bi yàlla na ci am ay ndam yu barke tegu yàlla nañ ci am ndam yu baax lool nag ak i sutura te topp yii ànd ak yow lañ bëggee ami ko ci barke yonneen ba doon rañaan ba dem ca xaras ci guddi gi may ko aw yiw nag waxel daju ko ak barke sëñ bi ganee àdduna dunyaa ci guddi gi le muy fadlu naa mbër ma dundal diine kenn bañu ko la gën ci yow gën ci moom gën ci ñun gën a baax yàlla nañ ko am ku ne dégg buur yàlla dégg nga ko kon loolu ñu dénk siit bi buy dem simila danaa la yóbbante yow mii jël si seet bi itam ndax day jigéen tematul lii soo demee waxi ko danaa la yóbbante yow mii jël si seet bi itam ndax day jigéen tematul lii soo demee waxi ko dafay tooñ di juum léeg-léeg dafay kumatul su doon ko mat duñ ko muur nii fab ko dénki ko ko na koy muñal kon te koy muuñal te koy mooñal ndegam xamoo loolu yow déglul ma ñëw fii ko na koy muñal mooy mu koy jéggal ndegam tooñ na te bum ko topp su juumee it mu jëllale ko muuñal ga mooy mu koy yaatal ci xar kanamam te muy kaf moom ta koy nax diine sopp na ko mooñal ga it mooy mu koy jox fawu dund bu doy na koy teral it te koy woddu te muy jege ko yar leen ko yor leen ko yiir leen ko te aar ko itam te koy suturaal mbalaanam yiw ma sange ko ko ñoom nag dañuy boole néew dooleeku fit mën a tooñ kon nag dafay jël yatu yërmaande dóore ko ko yónneen ba mooy ki fi gën téewul da daan kafitam di ree di neexal njaboot gam yar te kenn gënu ko di leen bégal ak a waar tey dimbulee ko yërëm ndax nee na seen xel rëyul seen diine mattewu ko waxal sëriñ ba ne nit njaay lañ ko jox na ko xam joxuñ ko bàyyi ma déggal lii te jottali ko ku dem ba jël nit di jox nit am na kon fu mu teg kookee mu koy jox na xam cër bii te sàmmati ko na xam ne waa jur wu ne xir nag ca doom jamu jur kon kum ko jox fonk tax jur sànni kenn defu ko baayam da ko wóolu nag moo tax mu jox ko ko kon na fonk kóllëre googi nag te mottuli ko ñaan naa ci bur yàlla moom mii def di dindi ta sañ ci barke Seex Bamba seeni xol mu dëppale ko te sotti xéewal ci seenub sëy te def barkeek njaboot gu yiw jàmm ak xéewal mu dolinu ko waaw ah, ah, ah, site bi toppee na ñii nii ñoom ñoom kenn toppagu ci nag maanaam jaraguñ nag dañuy misaal rek waaw ñu ngi ci kër ga nag bisimilah. jaajëf ci tontu yi leer na ak laaj yi yàpp nga itam ndaw si te dénk ko kañ kay jox nu déggati ko. sëriñ Abdul Ahad ka duñ la bàyyeegun am na way woo defoon ci njariñi garab xëy na garab ak yam yi faj ak ko niru. kon bu ko defee dañ lay daral incha allah nga dal ciy ñëw. sëriñ Abdul Ahad wax garab ak yam yi jariñ na ñëw wax la muy faj kon bu noppee nu yeggale euh, way wii euh, defoon nañ ko bu xaw a yàgg dama bëggoon a ñëw rek toog waaye suñ seexu naa bàyyi ma ci mu ne ma faw nga génne dara waaye bi ma xoolee kaggu gi way macha allah waaye woy wu ma yëkkati rek damay gis ne damaa magaadu dama mag woy wi te ma jot ci wenn rek jël mu jëmoon ci mbirum garab ma wax rek ne dama bëgg ngeen dégloo ci tey jii ma nettali njariñ yaa ngi nii rëy lool garab laa di fàttali dama bëgg ngeen dégloo ci tey jii ma nettali njariñ yaa ngi nii rëy lool garab laa di fàttali wutal say garab jëmbat te suuxat ko sàmm ko na ngay toppatoo bul tay doo rëccu boobale da ngay xëy mu def ak ker gu féex yaatu sedd lool nga jaaxaan fa yaag say gaay di sant ka fedd li wa illaa mu am ay doom yu neex lool nga wattu ko mu dib dund mbaa ngay jaay di faj soxla foofale mboolem tëddukaay yeeg toogo yeeg xeeti dencukaay yi ngay gis lu seer seer armoire yeey garab yile lalak bank coiffeuse ak kamoot taabal ak photo appui ak i yoo xam ne jaaxal na gaay yile rafet yaatu gaarante dëgër xayte piire lool nga ciy denc yee ngay tooge tëddal ci lal yile garab yaa bari ndam ak njariñ baax lewet gore ak i may yu rëy yoo xam ne lim ko xajul file ku jëmbët suuxat yar la foo màgge fay ko yiw mu am yii ma lim fii ak yeneen sax yu raw yile na ngeen ñëw nu booloo dellu fonkaat garab yile te ngeen xam ne réew mum am bekkoor jóg na foofale garab day waral naataanga ak jàmm ak juboo keram gaa waral mbooloo ma sax dàkk foofale garab day waral jullit yu booloo di kaf di ree di maslaa ka xalaat kenn du féewale su boobaa mero xiiroo ka di féewaloo dafay jóg te kon seytaane moom daw na foofale gisoo réew yu mag yii niñ ko bëggee te ko immeuble yu seer lañ ciy liggéey raar na lool file dangay dox di da dox di gis ay kër biroog néeg yu taaru lool te loolu lépp dénk ak bant la mooy garab yi le mayam yeeka mayam yeeka rëy ndam yeeg njariñ yeeka yaatu lool garab fépp foo dem gis ko fa am na sax pale garab mooy ndimbal nan jaamu bur yàlla sante ko dafay aar di faj docteur la moom ndaw lu xéewale dog ak tooy ak yeneen yor dog ak tooy ak yeneen lor yu metti lool win ak loora moo leen man te mooy saafaram file te win mën na bantub xir te win mën na bantub xerro nit mën na laat bu jub te xottu biteel yeey almet ak poto yii file mënee sula lim mboolem njëriñ yi garab yore xanaa kay dañuy soññee di sant fedd li sëñ seexu naa li ma lay tàggoo rek mooy juróom-yaari bayit yoo xam ne sëñ Malick Bassine si moo ko dénkoon mbokki jigéen yi ci wesar ma ñu nose ko ci way danaa la wax yetti yëf yoo xam ne moo yiwadi jigéen ju leen boole yaa bon jikko yaa jagadi làmmiñ wu rëy teg ci yàqub dund ak mën a dox sikkës jigéen weesuwul yi yett moo matadi jigéen dafay sàmm sàmmal jëkkëram yetti yëf ya sax ca bopp ba bam jof ngal la bum yëgadi noppab boroom këram bum koy dégg fenn fu dul foo xam ne neex na ko bum wën ndéelu bum wayadi bëtam ba bum ko di gis foo xam ne neexu ko it bum koy gis ak ku koo xam ne daa jubadi làmmiñ wa lum ko digal nay deftalum ko tere na daldi daw loola bum rëy rëylu bum xamadi dénkaane bi Seyxu Malick Baasi nay ka ko wax ma way ko ngir soññe dee leen bàyyi ak tëradi bàyyi Lamin ak booy Lamin am na xasida koo xam dañ koo séqoon kii di ci laaj kii di ci tontu bu ko defee ñu ñëw daa am ko tudd baay am ko tudd booy kon noonu lañ koy ràññetle bu ko defee kon ñu ñëw daal di jàllale xasida googu xam leen ne tey jii bi la booy weesu na booy bu kenn booy di dooni booy yor quelque booy booy bii de xam ne màgg na. Babou Sani la day mel ne euh, ni ñu jullee ak li li koy yàq li koy defar ci lan doon laajante. li ma ko njëkk a laaj mooy benn sunna jar na su jootam jaru ko wax ma lu leer lum man di doon lum tuuti tuut ma jëli ko. benn sunna jërul su xanaa yalo mbaa sax safaan ba muy biral yee ca yàllu biral ga war nga yàllu wàññi nga ko yàllu itam ku ko biral yokk nga ko farata moom su ko ndax defar na ko am indiwaat beneenay tax mu wàcc ko bul jéem a defaraat lu mel ni farata andil ma ab rakkaa mat wuutal ko fa bul jéem a defaraat lu mel ni farata indil ma ab rakkaa bu mat wutal ko fa kuy julli nag ñu woo ko rek tax mu ne ah julleem nga ndax yàqu na fii ma sori'a kuy julli nag ba juum ñu woo ko mu ne ah ba daa ko war ngir yokk na ca jooja ah waaye du yàq julli day julli man tisbaar ba am ñaar sëlmal saa xel mi del siwaat ma xam ne jéegul ma daa di jóg man kàbbaraat julli la des may laaj ba xam saa julli gi ana des ku julli ñaari rakka daa sëlmal xelam ma dellusi mu xam ni jéegul na daa di mottali ca saasa la desoon daa di sujjóot ba da ci leen gisoon day julli man timis ba am ñett jógaat indi yeneen ñett ba noppi far jógaat ba tem mu door a delsiwaat ngir mën luy sa xalaat ci lii ma def bul nërmal ku yokk ñett ci timis mbaa ñeent ci julli gee reeram ba dañ koy betti julleem nga yàqu na yaxeet na julliwaat ku sikki sàkka dafa wàññi na defaat julli boo ci yokkee lu toll ni julli ga muy timis ñetti rakka sëg julli yàqu na amul ba'da salaam amul qabla salaam da nga julliwaat soo ci rok bu dee geer nga yokk ci ñeenti rakka sëg julli yàqu na bu dee fajar nga yokk ci ñaar rakka sëg julli yàqu na day jax-jaxal day jax-jaxal lu bare lool ci biir julli wax ma lu wér li war a am ci jigéen julli daay jax lu bare lool ci biir julli wax ma lu wér li war a am ci gii julli ko xaw a dese nag du def la muy sikk mu bëgg ko indi na ba la muy sikk tewee ci ak julleem sujjóot ba ak rafetal la dañu ko sopp ci ñoom kuy julli ba yàgg muy doon koo xam ne dafa xaw a dese wala xel mi matul dañ ko jéggal la muy julli bu mu jël di ko defaat su nappee na sujjóot ba dama béral xunóot ca kaw te tayuma dolleeti saar ca ñaar yu mujj yëguma lan mooy lan mooy atte waxal ma dégg la soo ko manee soo ko mënul ma seppi la xunóor ci suba ku ko tey biral ko def nga lu ñuy sib ñàkk tey nga sibu ko ak it ku dolli saar ci ñaari rakka yu mujj ya julli gu ñeenti rakka ku jàng ñaari saar ci benn rakka wala lu mankiw saar mu doon ci jàkka mbaa ce këram imaam la am maamoom la du wàññi dara moo xamit ku junj la xunóot ci suba ku ko tey biral ko wàññiwul dara ku ko tey bàyyi ko wàññiwul dara ku am ku julli ñaari rakka yu mujj ci tisbaar wala tukkusaan nga xam ne aw dañ ca war a jàng faatiye dong nga jàng faatiye doole caw saar du wàññi dara ku jàng ci benn rakkaa julli faatiye jàng xul huwa fàllaxi naasi mu ñetti saar du wàññi dara baamooti naa fatiha man ci njuumte jullik farata laa ko def muy joote luy xatte bii waxal ma dégg ma déglu jàpp ko yow fóore ji loo wax ma bind denc ko ku juum ba baamtu fatiha baxda salaam bu ko tayee la gën a wér yàqu na moom ku sëgg dem bay jàpp moom ci wóomam bu mu siggiwaat ngir li fàttali ko li fàttaliku saaram faatiye boo ko baamtoo ci julli jàng ko ñaari yoon maanaam ba salaama la war ndax da ngaa yokku te boo yokkee loolu dangay kii da ngay bu dee saaroo na nga yokk nga baamtu baamtu saar du la wàññi dara bokkut ak faatiye saar wi nga sañ a baamtu waaye faatiye kenn sañu ko baamtu. jazakallahu xayran loolu laa amoon laaj. Serigne Cheikh kon. ñi sunu gan. ci ñi bindoon. di wax lu rafet. xanaa ñu xarit ñi fi ñëw. gërëm ñi ñu ñëw fi ñëwut. gërëm nañ kii. di Lamin. gërëm ab. dayoom amatut. gërëm waaye bu fi ñëw. te njukkal ni seen lay it. di ay woykat di leen sargal. nde ñooy sunu nit. ñi doon xaar tey. nu def fi lu rëy. na ngeen ni jaamama tut. bégal leen rek. ka tax ba nu dig. ku toog yi rëyut. ñi tette ñu am. ci seen fay boo. leneen leen. bo ki sut ki fi sut mayam tuutut du looy jeexit ku tab rek a mat ci ñun ñi yéen sunuy soppee nu may aw fit bu fekkee ni kenn bégut. danañ ko ba mu gën a mat. ñu def ñu rambax. dañoo danoo jàngut. ñu ñaan buur yàlla. may nu li gën ci sun réew mi ñu koy wommat te ñaan buur yàlla tëbb nu wér nu sax ci ndigal ci yoonu murit nu def ñaan tàggu ñëpp di dem joxante yi dig dajeeg sunu sit. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa